liggéey euh, bi ñu fi liggéey yëpp li muy bari bari nag léegi dañoo war a bàyyi xel ci ne yeneen liggéey a ngi ñëw liggéey yoo xam ne li ci njëkk fii nu toll nii mooy màggalu daaru muxti màggalu daaru muxti nag euh, Touba sunu yëfa nun ñëpp euh, Poroxaan sunu yëfa nun ñëpp màggalu fu mu murit nekk goo xam ne Serigne Touba. moo tax ñu koy màggal bokk nañ ci loolu lépp ànd nañ ci ci suñ biir xol buñ fa mënee teew ak buñ fa mënta teew moom boole nañ ci suñ bopp ndax daray Serigne Touba moom lu Modou Kara bëgg génne boppam amul waaye bu loolu jàllee nag suñ màggalu bopp gi nga xam ne moom lañ am te bokk kook murid yi mooy màggalu Daaru Muxti muy màggal goo xam ne nag màggal yëpp rëy màggal gépp yëpp yit ñoo am ab yan ndax ku bëgg a yanu nag mooy yanu waaye ku bëgg te yanu doo màggal gi suñ neexoon duñ ci am benn yan waaye dañ koo doonul liñ doon mooy yanu nit koo xam ne nag ab liggéey nga doon ak yanu bu yanu jotee da nga yanu te yanu loo ña nga xam ne ñoom la la yàlla booleel ma leen di wax ne leen lu ngeen doon def ci bés bi na ngeen ko yokk lu ngeen ko fonke woon na ngeen ko yokk kenn ku ne la nga ca daa defit bu dee benn la na ko def fukkam tey nit nag bu fekkee dafa dañ ko woo ab liggéey mu ngi mel na ñu woo la xare doo nekk ba egsi ci xare bi di sox sa ak di naan ndax ku am foofu fetal ku am foofu cartouche ku am foofu yat déedéet nit ki day waajal ab xareem ni ñu bisit noonu lañ koy waajale balaa bis bee ñëw da di fexe ba lépp lu ñu war a def ci bis bi yemb kan moo ko war a yembal yéen taalibe yi ak soppe yi nuy woo koo xam ne nag ab taalibe sëriñ tubaa nga màggalug daaru loo ci doon def nga dolli ko te bu noppee waajalaat